سسار مهجان تعاودر فطاه هؤلاء وساقيا من في التوهب بي والسكن كمن آمن بقي أسير عجلا من بشي محمد بن حرق من الله كرام كسر جواني جوع وحمني وقني أذى وراه كرام كسمع وأدي هو مشاكل أجيب سبيل من حسن دي محمد وتب كرام سواء كان تعاودر نيجي شعر نيب و ألم بودي وقيد أكابر صالحين وأقول خديم هني أكون فنو أقول جدي جرك أكبر جمع أخي قبنا لا جبير taa mbokk mbokk mu mu ngi koy yónni woon na ko sax xam naa danaa ko bëgg di ma xaw ma danaa ko tontu gën ko yaatal yàlla bi sax xam naa xam naa du ko jaar ndax laaj laaj bi mooy moom dafa laaj ne lu tax dañoo wax ne sëñ bu mag bi sëñ Xadim bi mu demagul ci géej gi daawul daawul ubbee basmala bi mu ñëwee di ubbi basmala suñu mu mu wax ne waaye bu ñu ko laajee da dane bu leen moom moom maroo yi ndax dama am ay ay jagle loolu si wax na ne si sëñ Sàmm ko wax maa xul ba sëñ Sàmm ni wax na waxee nit ñi waaye ubbi gi basmala gi moom waxoon na ko noonu waaw léegi nag moom muy laaj ba xam ne ndax kon basmala kon dafa gën a wér wala ak li ñu wax ne tijaan yi ñoom maliki yéen ba noppi te dañu ubbi ko basmala loolu déggoon naa borom xam-xam docteur saani waxoon ci waaye xam naa jumbul daanaa ci ci am na ay yeneen leeral yoo xam ne jumbul to saani su ko déggee moom it dana ci mën a jëriñoo wala mu mu jëriñal la ci wax ja mooy wute wute gi ñu wute ci basmala ku mel ne imaamu malik mu ngi bokk ci qurra al mu'tabarin ci la bokk demal ca maarifatul qurra al kibaar bi dahabi aussi aussi aussi a'laami nubala ba tey li dahabi demal ca demal ca xayatul nihaaya am na solo moom moom ci qurra yi la bokk dañ ko miné wut ci qiraa ci qurra yi mini mini ñu ko ci man naa am bu dee si suñu wàll gi nañ fekk bi dañ ko miné waaye ci qurra yi la bokk yàlla imaamu naafi moo ko jàngal moom mi jàngal warsh kon ginnaaw imaamu mu naafi yi ab ab sëriñam imaam bu naa fex dañoo am dañoo am ñaari riwaaya yu jógee ci moom ñaari dongaam ya muy xaalu nag warsh boo demee ci adror luwaami li ibnu bar dafay wax naan qaaluuna bay bayna suuratayni basmala wa warsh ngir wajhaani anhu nuqila waskut yasiran taxus taxsa bi sawaabi aw si lahu mubayin in al iraabi qaaluun moom moom basmala lay andi fi indi suura yi nga xam ne dañoo jàpp ne basmala kon kii la warsh nag moom am nañu ne riwaaya nañ ko ci moom ci basmala mu di ko ci andi am ñoo xam ne am ko ci al imaamu Sharkasi wax ca lu am solo dal al basmalatu nasalat ma surati fi ba'd al ahruf as-sab'ati fa man qara'a bi harfin nasalat fihi addaha wa man qara'a bi khayri dhalika lam ya'uddaha kon am na ñoo xam ne ne ne ne ci juróom-ñaari njàngin yooyu yu siiw yi wala juróom-ñaari araf yi ëpp na juróom-ñaari araf yi ëpp na ëpp na njàngin kon juróom-ñaari araf yi kon am na ci ñoo xam ne xiraa bee dafa ñëw ci xaraf wee ànd ak basmala am bee am xiraa boo xam ne dafa ñëw amul basmala ku jàpp xiraa bee daal di lim ba basmala ne ab aaya la ci alxuraan ci ci ci ci saar yi saar wu ne ku ko dee aw saar la waaw am ñu ñu ne déet soo sootu nam rek wala kon imaam Malik an Naafi moom moom lim jàpp mooy ne ne suuratu nam li dong la basmala ñëw ñu wax ne ne imaam Shaafi'i yi dong ak imaam Malik moom day jëlee na ko ni ko Ibnul Jasri waxee ne ne ne ne wute gi am benn Maalik aw Tilmiisi Shaafi'i yi la la la ko waral mooy wute gi ñu am ci wute mooy dañoo wute ila ixtilaaf la qiraa fiima fiiha bayna ahli makkata wa ahli madina waaw borom ci téeram bi wax mun jidul muqri'in tey dafay wax ne kat wa mimma yuhaqqiqu laka anna qira'ata ahli kulli baladin mutawatira binisbati ilayhim anna al-imam ash-shafi'i radiyallahu anhu ja'ala al-basmala min al-qur'an ma anna riwayatahu an shaykhi malik taqtadi adama kuniha min al-qur'an li'annahu min ahli makkah wa hum yuthbituna al-basmala bayna suratayn ويعدها ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو وهو قراءة قراءة ابن كثير kon moom nee na nee na dëkk bu ne gox bu nekk dafa siiw ci ci ñoom xiraa ba mu tawaatir ci ñoom ci la ñuy dox imam Shaafi moom muy jànge ci Malik la mu ca jànge mooy basmala amu ci waaye ginnaaw moom makki la makk la nekkoon booba makk ñoom la ko siiw mooy mooy ne kat basmala am na ca ci diggante saar yi kon kon kon kon moom njëbinu njëbinu saar wu ne kon am na ca waaye bu dee Malik moom lam xam ca Madina mooy maanaa kii waaw nga xamante ne nekkoon Malik nga jàngal Shaafi'i waaye imam Shaafi'i yi la la siiw fa Makka moom mooy ne basmala ci la bokk ko kon foofu kon da ngay daal di xam ne kon kat ñi ñi jël ci waaye Malik bi nga xam ne mooy ne mooy ne basmala bokkul ci Fatiha kooku ci xiraa la waaw maanaam ñee ñoom dañoo lañ jàng gis ñu ngi basmala am ñoo xam ne nag ñoom lañ jàng basmala dañoo bokk kon kon kon xiraaf bi kon ci ci xiraa àla bi rek ma ma ma sañ koo laaj ne ko ne ko ndax biral basmala ci ci julli mu ne salaw an kulli ilmin ahla wa naafiun imaamu naasi fi qiraa daal ni daal ni loolu moom laaj leen kenn ku nekk xam-xam bu ne la laaj leen ko ay ñooñam naafiun nag mooy imaamu nit ñi ci jàng alxuraan ci waaye yi kon kon moom lam jël moom mooy naafi almadani yi lool loolu rek la kon kon ci ci ci xiraa bi la waaye sax du sax feq kon moom léegi wuute gi foofu du du feq jombul ñu ñu bari dañu yaakaar ne basmala xiraaf bi xiraaf fiq yi la waaye déedéet xiraaf xiraa iyi la waaw ña ñàngin wala waaw waaw loolu loolu kon kon kon kon la imaamul jasari wax ne wa hadihi al aqwal tarjiu ila ila nafi wal isbat wallati nactaqiduhu anna kilayhima saxix wa anna kulla dalika xaq fa yakunu ixtilaaf fiha ka ixtilaafi xiraat lépp dëgg la wute gi ci ci wute ci xiraat aat yi rek la kon foofu kon mel na mel na ne kon leer na sëñ bi bu ubbee na basmala ca ci géej ginnaaw géej gi lépp day mel ne kon al imaam mu Shaafi'i yi jógee na Madina dem dem dem Màkka di ubbee di di di ubbee basmala te sëriñam ba ca Madina moom du ubbee basmala loolu kon bu bu dee kii na mel na ne nekkoon leer na waaye nag yéen nag imaamu Malik moom ca awalu ahli Madina ci ci lay dox te te te loola kon day mel ne ne kon moo gën a dëgër. ci koo xamante ne da nga da nga jàpp ne li ñuy jëf a gën a wóor li ñuy wax wala ñu di ko bind ndax la ñuy wax li ko di ko bind bu ca nasxu amoon jëf jëf ji man man mën na koo saxal waaw maa ngi weddi ko kon mel na ne kon leer na soxna bi waaw.
jërëjëf sëriñ bi kii da doon laaj ay leeral ci ay alxuraan yi ayab suñu borom wax ne alam yaraw anna naatil arda naqsuha min atrafiha ak siiru qul siiru fil ardi fanzuru kayfa badal xalq mu ne day laaj ay leer ci aaya yi ak fu jamono toll ci wàllu xam-xam
waaw atraaf atraaf yooyu day moom daana tafsir nag moom moom xusuma ja waaye daal atraaf yi am am nañ am nañ ñu wax ne dund yi gi la dund gi maanaam bu njëkkoon nit ñi daal daalañ gudd fan lool nga xam ne dund ay junni at ak yu ko tegal léegi ñu dem bay ba téeméeri at képp jafe am nañu wax ne atraaf yooyu loolu lañ ci jublu am nañu ñu ne atraaf yi di ñu jublu mooy borom xam-xam yi borom xam-xam nag bu ñu ko waxee mooy al ulama ul amilun gaa yi jàng ba noppi tey jëfee jàng jàng lii ne lislaam ba noppi di ko jëfee te gëm ko te gëm ko nga xam ne jëf ga amuñu ca intérêt bu ñu cee xool da leen na na na na war dong manqué ñoo googee ñooñu manqué ci kaw suuf nee ñu mooy ci atraaf la waaw day day nekkoon jamono ju nekkoon gaa yooyu dañuy gën a manqué wala bu ñu amee dañuy nëbbu waaw foofu ci la la ci yam waaw sëriñ bi kii dafay laaj ay leeral moom tamit ci ay alxuraan yi mu yi muy bëgg jàng ndax ni da am ak jaaxle daal ci ay si maanaa bi benn aaya bu may waa ma yëpp ta xeer islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l-aaxirati min al-xaasiriin ak aaya bi suñu borom wax ne wa rahbaaniyatan ibtadauha maa katabnaaha alayhim illa ibtigaa ridwaanillahi fa atayna alladina amanu minhum ajrahum mu dafa bëgg ay leeral ci aaya yooyu ok xam nga xam nga xam nga booba yëpp tey xëy islaami diinaan képp koo xamante ne dangaa wut jëleen diini di jaamoo yàlla nee neen nu bukkut ak nii yàlla rëdd ci kitaabu sunna kooka boo liggéey day perte bu dee nag am na ci ay xasiis nag ruhbaan yoo xam ne ñu ragal yàlla lañ gëm nañ yàlla di jaamu yàlla di ko nëbb ñooña moom yàlla dana leen fay seenub yàlla waaye képp ku bëgg am yàlla ci sunna si sallallahu alayhi wasallam si dong ci nga ko mën a amee mën na su ko amee ci leen léegi nag am na ku may laajte na naa ma ndax ruhbaan yooyu axbaar yi ñoom xam-xam ji ñuy am nag waaw ma ne leen loolu ay bagage la mi ngi mel ne ne xërëmkat yi la ñuy def góorgóorlu dañuy def ay ay ay loi la ku def nangam un plus un égal deux dong la ab jiitu ko wax ak yëfër ko wax ci yam loolu ay luwaay sunnatal lay firis na xalaw sunanul kaw nii ko ko trouvé mën nga ci lu ne scientifique yi nga xam ne ay yéefar lañ ña ngay dem ca ci kaw asamaan yi di dem ci ñaa ñu weer wek am nañu ne yu demuñu ci am nañu dem na ci waaye lu ci nekk mën naa am yaa machal insi wal jinni insattum an tanfusu min xalaati sama doole fanfusu laa tanfusuna illa bi sultaan comme neex ma yéeg dem ci diile yi diile yi ñi nga xamante ne awliya yi dañuy xotti diile yi keneen it mën naa dem dem ci weer waat fu ne su dee góorgóorlu na waaw sama temps
jërëjëf sëriñ bi kii mu ne dafay laaj lu mel ne bàyyi laat ak sëriñ soné bu ci tëlug murit la bokk mu ne xam nañ fu ñu jigéen ndax lin miñ ci baat yi ci tur yooyu waaye lu mel ne turki njaarim lay laaj moom fan la bawoo
bàyyi la laat ak sëñ Jean bu bu bu bi xam nga moom sax moo gën a wér moom sëñ Jean bu moom wér na xam naa bu mi ab sabadoor lañ xamoon na niñ ko niñ ko soppee noonu xam naa xam naa ci sëñ Jean bu man laa ko miine soppi ab sabadoor dañ ko soppi dugal ci dara day mel ne si changement boobu ak Cheikh Blat bi moom dañoo dañoo dañoo jël sa sabadoor jaxase ko ak mu mu ñuy tuddee Cheikh Blat baylaat mu mu doon si si si changement boobu. waaye nag bu mu wax tuddee baylaat. mu mu mu mu moom mu yàgg la ba ba demee Égypte ci seen kaw kaw ya ñu koy sol. bu bu bu boo seetloo bu bu njëkkee ci Sénégal mbaakol bu bu baylaat bu bu mbaakol mbaakol la baylaat kon xam ne ne nday jën ma nga dëkk njaxaate ñooñu kon ñoom ay mbaakol mbaakol piir lañ koo kooku colog mbaakol mbaakol la surtout waaye dafa xam ne daara ko sol waaw ci colog mbaakol la suñu Hadi Touré daara ko sol noonu ci colog mbaakol mbaakol la sëñ sëñ sëñ Abdou Aziz Sy daana ko sol ca ngir benn daana ko sol waaw waaw Cheikh Blat mii ñu wax la baylaat bi yëgul rek dara la sol dara potom yi yëgul yi rek dara da ci daa sol kon kon loolu moom xam naa ni ni ñu ko ci waxee noonu ndax ndax ni ni ñu ko miinee mu sol benn bu boobu rek waaw waaw kay
day turki njaareen bi.
waaw kay tur turki njaareen bi nag moom am na sax ñu may digg naan turki bi turki naan da fi si bara ji jóge turki waaye turki moo moo njiit lay mooy moo moo njiit lay lu mag loolu ñu daa jiital jiital ci ci dara nga xam ne da nga koy sol sol dara ji am na ñu tuddee turki dara ba tey turki boo xam ne dara loxo yi day ubbiku waaye turki njëriñ la ñu wax ne njëriñ la feeñee waaw maanaam loolu moom maanaam xewetu njëriñ la maanaam murit gi moo ko génne waaw loolu moom loolu moom kon moom lu bees la ci civilisation bi nga xam ne moo juddoo njëriñ ci biir murit bi waaw jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj lan mooy alfanaaw
waaw day laaj luy alfanaaw waaw lan mooy maanaam
fanaaw saahir rek baatin am na suñu tubaab waxee fanaaw fanaaw saahir ji mooy moom nga ci nga narganu ci at li ndigali yàlla yi charia bi nga narganu ca doo ca di doo doo ca dindi dara doo ci yokk dara doo ca doo ca wàññi dara lu lu say may bari bari fanaaul baatin bi mooy li li la xaqiqa di jox ay ndigal ak yooyu nga ne ca ngooy jox lu metti metti nga def ko kooku mooy fanaa fanaaul boobu muy baatin bi léegi loolu lañ xam ci tasawuf mu am na ñeneen nag ñuy wax leneen yàlla yàlla yi ñoom liñ tuddee alfanaaw ñoom ci ñoom mooy nga dem liñ tuddee waxdatul wujud mooy nga dem ba effacé wu yow amatoo monde bi amatut dara amatut lenn am mu yàlla soo demee ba ca foofa ñoom nee ñu amatut considération yi nga doon amoon amatut ay ay njaaloo li ngay tudde bakkaar yooyu nga xam ne bu ñaar góor ak jigéen bu ñu tasee woon boo waxee ñu ne ah déedéet loolu kan moom amut ndax ndax ndax jigéen ñi amut xam nga ñëw fi fi fi ñu déparé ñoom jigéen amut góor amut bi waaw kon léegi kon léegi la ciy juddoo lépp kon ñoom dañoo jàpp ne am maanaam léegi waxdatu wujud la lépp benn la yàlla la kon léegi bakkaar mu munta am loolu nag moom xam naa jombul ibnu arabi yi laa jàpp ne lañ ko jëlee te te leeru leen ibnu arabi yi waxdatu shuhud lay wax wax waxdatu wujud waxdatu shuhud sunu sunu sunu maam yu jëkk yi maanaam léegi lu mel ne séréer yi seen pas-pas yu jëkk yooyu nga xam ne li nga dégg ñu naan seen garab yi nga xam ne ne dañ koo def ne ne daa am ay secret ki nangam ñoom dañ dañoo jàpp ne nit ki sax su faatoo maam yi faatu woon maanaam léegi seen ruux yi day mën a ñëw ñu leen di nangam ñu ñu jàpp daal ne ruuxul kawniya waaxida ruuxul kawniya waaxida moo xam yàlla lay doon moo xam maam ya ñëpp ca ci ca ruux googa ci la ñuy sof kon léegi waxdatul wujud ñoom la lañu wax bu dee ibn arabi moom wax waxdatul shuhud dem ba nga xam ne danga mën a gisandoo lépp yàlla fenkat bu fenkatee ci ci lu ñu tuddee almarajal wahbiya léegi yow ci nga gisandoo lépp gisandoo googu lépp la ñuy tuddee wax dëgg si boobu foofu kon sew na lool. jëmbut kon foofu kon ci lañ jóge kon.
jërëjëf sëriñ bi kii day wax li ñuy wax tanaasul arwaax ndax dañ koy jàngee ci philosophie métaphysique noonu la ko noonu la nekk ci philosophie ci fa nga xam sax tasawuf wala benn phénomène la bu bokkut ak ñoom ñaar.
déedéet déedéet transxo arwaax moom. du lislaam bay bay doon tasawuf. sunu sunu maam yeeg ci séréer yeeg yëkk yeeg daanañ ko wax ñoom. da da dañuy am doom mu delloo. ñu amaat doom yàlla koy wutal mandarga. dagg dagg ci moom dara. ñu ne bu doom ji dikkaatee mandarga ma ñu gis ko ca dañuy xam ne kooka dem ka demoon dikkaat. kon kooku dara topp. loolu moom si seen i aada la. adduna nag dafa bëri sew sew. yàlla moom ngóoram gi. lu mu la ci xamal rek lu mu xamul xamul xamu ko waaye loolu ñoom gis nañ ko ñoom. dañ koy daal di tël mandarga. léegi bu judduwaatee nee ñu. dana topp. waaw loolu loolu loolu la ñu tuddee transport arwaax. xam ne kon bu jigéen ñi noonu suñu mbokku séeréer yi ñoom ñoom ñoom xamoon nañ ko bëgg démb rek xanaa wala démb rek xanaa waaw boo demee ca ca ca bouddhiste ya ñoom it loolu lañ gëm waaw loolu ñoom seen sëñ buy dem sëñ ba day summi ko ci kenn waaw kenn ci ci ci kenn ne kii man moomay doon loolu loolu kon ko trente ko waaw léegi ci nag islam moom xamul loolu waaw islam moom xamut tanaasul arwaax waaye li mu xam mooy mooy kenn ku nekk sag ruu bopp nga am roog yi roog yi ci roog yi day day jóge fii dem alaxira waaw waaw loolu loolu kon kon kon philosophie yeeg ak bouddhiste yi yeeg yooyu islam ak suñu mbokk séeréer yu jëkk yi ak yëpp islam islam pas pas pas boobu moom ci xamul ko moo tax ñuy tuddee incarnation taqamus taqamus ñu diw kat roog diw moo moo ne ci moom waaw loolu loolu loolu moom ci alaqaidul buusiya wala alwasaniya ci la ci lañ ko xam waaye xamuñu ko ci islam
jërëjëf sëriñ bi kii day wax ni ku gént gis sëriñ Tuubaa ma jokk ak ay alxuraan karim wala xasida nangam ne ko boo ko dee jàng bala ngaa faatu da nga xam njëriñ la ndax dana doy loo rek mu koy jàng wala il faut que mu laaj ko sëriñ
waaw waaw maanaam ku gént gis gis sëriñ Tuubaa mu ne la alxuraan ay ay alxuraan sanga wala xasida sanga boo ko dee def wala ngaa faatu da nga gis xam njëriñ la waaw waaw loolu loolu de moom mi ngi mel ne ku gën doon ñëwee la médicament sàngam day dana dana faj nekk naa keer biir di metti ma gént am ku ku ma jox ab sirop ne ma sirop bii de baax na ci ma xëy te ngoon ju ngoon ju jot am am ku ku fa ñëw di ma seet si na alum doon ma ne ko ban sama bi di metti mu ne ma am na garab sàngam sirop bi siro bi ma kaa mu ne ma ñu dem ci ci pharmacie bi di jënd ko ma naan ko lay kimtaan lay kimtaan ci bi ma naan ko daal di wéer ci saasa siro ba réer ma xamatuma turwa ki ma ko xool xamatu ko loolu moom lu xorom war moom maanaam daam ñoom ku jox ku ñu wax daam ñoom la daam ñoom daam ñoom mi ma waxoon siro bi ginnaaw bi laaj naa ko xamut trop maanaam léegi ma biteel ba réer moom furu rek mu loolu loolu moom bu doxee noonu moom jërul laaj kon day mel ne nekkoon yow kii gént gént ga kooka moom bu amee expérience bu ma xam ne kat moom saa bu génte nangam kooka moom man kii bu dee nag loolu amu ci nag la gën mooy nga nga ci nga dem laaji ko yaakaar naa leer na xanaa.
waaw leer na sëriñ bi kii moom day laaj ni dafa gis ne ci wolof yi xew yu mujj yi yëpp bu ñuy solo dañuy solo solu tukkuleel te xam nañ ci bambara ki séeréer ñoom bu dee xew ñu ñuy takk wala ñuy sëyi dañuy sol seen solu bopp waaye wolof yi moom dañuy gis ne dañuy bàyyi seen solu dañuy bàyyi dañuy sol solu tukkuleel muy laaj ndax olof dafa amul wala doo amul mboor wala seen bët daanu mu demee
xam naa loolu loolu loolu mu jàppee ne colug tukulóor la colug démb mbokk Sénégal la tukulóor yi ñoom ñoo ñu ay conservatrice xam nga ko tudde xam ma conservateur la ñoom jigéen ña noonu noonu ko léegi nag mu xam fasa boobu ñuy def nga xam ne ñoom seen aada yëpp dañ ko téye ni mbokki séeréer yi def téye aada wolof xam nga moom téyul aada wolof taaxe gee tax taaxe gee tax maanaam bu français bi ñëwee anglais bi ñëw américain bi ñëw arab bi ñëw xoolal xoolal islamiste yi quatre ay quatre vingt rek fallax juddu nagam nagam ibaadu rahman tàmbali nagam gars yi yéen a ñoom ña ña ña nga jàngee arab suite xaw ko amub diir di sol si suñ si àll ji daal di ñëw ñëw di ko sol daal di daal di tàmbali di ko di ko indi yére yooyu ngir bëgg ku bokk ci ñoom boo solee loolu séew bari daal dañ ko mën a xam nga ne kon man koo jënd sa sol ko ku la seen yaakaar ab ibaadu nga wala nangam nga te sax bokkoo ci ndax loolu loolu politique la waaye ci waaye col googu nga xam ne suñu si àll ji boobu islam si di sol jàpp ne colu islam la déedéet salaay salaam makk makk amuñu woon mbubb nañ dem ca asalafi marxatun mu mubaraka bu bu al imaamul buuti salaay salaam madina na la suli mbubb taraxlaay bii ñu def nii ci ak gi loolu ak col la makk booba booba naari kaw kaw ya col googu la ñu am amuñu leen manto yi suñu sol jële bi yooyu manto yeeg yooyu yi nga xam ne mooy seen seen abbaay yooyu ñu sol noonu yooyu Iran la jógee tey la saan manto Iran la jógee Iran waaw ndax loolu si civilisation la bu kawee naar yi ñoom ay kaw kole xamuñu manto léegi nag islamiste bi bi sol sim sa laj bi yaakaar ne moom léegi mu ci dara fekk ne moom xamul ne sax moom ma nga cee aaday Iran sol waaw léegi naka noonu fii du aaday tukulóor bu yàggu dana rek li ñu wax jamono kura jamono kura amoon na ay quatre vingt jiitu xam naa tuuti rek nga xamante ne booba booba buñ dee baaw naan sax jigéen ñi dañ dañuy solo noonu nga xam ne dellu ci jëmb jamono kura mooy jamono jëmb ja nga xam ne jamotu nag nangam yooyu moom ñëpp a ci yem boobu tukulóor yi yàgg wolof yi yàgg séeréer yi ñëpp a koy def nga xam ne loolu mooy taaru démb bi jara yi ñu takk ak jaaro yi yooyu yëpp maanaam tukulóor yi ñoom dañ koo téye ñoom conservé ko waaye loolu mooy colog africaine bi dëgg booba noonu Sénégal civilisation bi foofu la toll soo de gisee ci ci photo yi jëkk yi maanaam léegi léegi jamonoy tubaab bi ñu amaam sa aw xew soxna yi noonu nooñu daa solo di musur musur gu rëy rëy gu kawe di di jël ab sirub dënk sirub rabal la ñuy la ñuy la ñuy da nga waddoo ab sir teg ca sirub rabal daal di sol li ñu tuddee camisole wala boog mambo yi dafa gën a mujj mujj bi ñu ko abbee ci ci ci ñoom teg ci daraa ji jël sirub dënk sirub dënk sir lay doon bu bu diis daal koy teg ci seen kaw ginnaaw bi nga musoroo ba ba noppi soxna muslim si so so soxna mayum sëñ Tuubaa wala soxna muslim am na ci proy xarit da nga ko gis daanaka dënk wala njaago rabal moom la ñuy woddoo ginnaaw sir sir sir bi bu ñuy jiital teg ci rabal bi sol solu ab camisole wala bokk lu ñuy tuddee léegi mam booy teg ci daraa ji musóoru daal di jël sirub dënk wala rabal teg ko ci ci ci sa kaw loolu moom loolu mooy loolu mooy mag ñi dëgg booba ñu civilisé ñu booba waaw waaw kon kon kon kon kon kooku laaj bu am am solo laaj ndax daa gis ne tukulóor yi ñoo conservé loola mu jàpp ne ñoo ko moom te déet boobu mu ñëw booba da nga gis maa ko koyaate digg naa ñeneen law nay xaare rahmatullahi alayha nga xam ne kora la ñuy def ñoom kora. kora mooy musique bi gën a kawe. symphonie boo demee ci Allemagne baax. Mozart. nga xam ne seen mooy mooy seen tëgginu woo tëgginu musique boobu xam ne moom la buur yaa di déglu. mbalax bi moom maanaam baadoolo yi ñu koy déglu da nga gis da nga gis maa ko yaate buñ dee way du fecc day jaayu. jaayu. mooy peccum ab sang ab sang day jaayu ni ni garab gi di jaayoo ni ni ni bàngaas yi jaayoo noonu bu dee ngelaw ngelaw lu lu yam jaww ji dal boo ko dee xool biir yow lo jaayu googu moom la jigéen joo xam ne ab sang la waaw fekk si ka yëkkati si yére kooku moom baadoolo ba bi koy def léegi léegi jaay googu tukkulóor yi ñoo ñoo ko gën a téye ak bambara yi su ninki yi ñoom ñoom da dañoo téye noonu calgu calgu calgu maa ngi seetaan bis ci Égypte ci ab ab télé ab interview micro trottoir ci ci ci tefesu Iskandari gi xuma benn seen soxna sax am malien la ndaw si nuyu ko fa jóge Mali nagam naa dama bëgg nga woyal ma ndaw si si ne ko déedéet man fa ma dëkk dañ may dañ may woyal ndaw journaliste bi moom dafa daal di jàll xamul yu wax moom waaw xamul yu wax kii kon moom mu xaafisa la conservatrice la moom dafa dafa téye démbam man fa ma dëkk dañ may woyal waaye man kiiw ci man kooku kooku bu dee suñu wolof yi moom lépp a jaxasoo amuñu démb waaye rek ñàkk a way xamuñu ne lu mu doon kooku kon dafa mel ne laaj bi xanaa xanaa jar ko na waaw macha allah leer na kon xam naa laaj bi ni mujj rek mu jëm ci wàllu xadra ba kii day wax ni dafay dégg ngay wax ni xadra buñ fa nekkee
buñ fa waaw buñ fa nekkee waaw waaw waaw ñoom ñoom waaw ñoom buñ fa nekkee ah mais xutbi bi mooy toog lu mel ne ca xuba nee na ñaar seq imam ñaar imam seq ko ak mbooloo ma léegi nag nee na loolu jaaxal ko ndax day day dégg ne mu ne martaba bu nekk ab benn xutba dafay nekk te daal loolu la bëggoon ay leeral daal wala xam naa ba Bamba Fall rahimahullah daa mel ne la ko lañ laaj ba xanaa de waaw mel na rek Bamba Fall rahimahullah da koo laaj for tunduma ko bam bam dem waaw moom li ko doon jaaxal dane moom noonu ma waxee ne xutbul xawsu maanaam xutbu xutbul xawsu wala xutba ni ñu ko waxee moom xutbu bi dafa kenn lay doon ñaari imaam ni war ko naka laam mu nekk ci coroon ab xutba dahabiya loolu da ko jaxal te moom day aktaab yooyu xanaa kon xutbu aktaab la jublu waaw moom leer na ton ton la moom xutbul aktaab la xutbul aktaab aktaab yi koor bu ne am na xutbu xutbu bi bi nga xam ne nag mooy mooy liyee ñoom ñëpp xanaa mooy mooy seen kilifa ñoom loolu mooy xutbul aktaab xutbul xawsu nag baat bi mooy xutbu bu bu bi saa bu ñu demee ba soxla ko di ñaan ci barkeem di ñaan di ñaan ci mu wallu keroo lay tudd xutbul xawsu xawsu bi sifa la boo xam ne da day mën naa ñëw tey bu ëllëgee du ñëwati saa bu ñu ko soxlaa woo ko rek léegi moom ci xaw si yéegi ci lay ci la koy wuyu parce que martaba bu xaw si yéeg bi bi mu bi mu ràngoo ci la koy wuyu maanaam léegi ci waaye xawsu samaan bi loolu la xawsu samaan bi mooy ku mën a wuyu waaye xutbul xawsi nag wala xutbul aqtaab mooy njiitu xutbu yëpp mooy njiitu njiitu aqtaab yëpp léegi nag suñu borom nguur gi ni mu ko ni mu ko ni mu ko de nosé nee naa waa adduna yi war nañ ko ba xel ku mel ne américain yi ñoom bari nañ ko xel mel na ñoom noonu ñu pouvoir yi ni niñ ko séparé bu dee suñu américain ñoom defuñu ko maanaam fi toll yow akta bi kenn ku ne xutbu nga jiite ay kuréel léegi nag ñu amaat xutbul akta kilifa yooyu yëpp mu am benn kilifa ñu amaat nag alaaluuna minal malaikati wa minal bashar mooy ñoo xam ne kenn yilfu leen ku ku ku yàlla nga xam ne am na ñoom seen pouvoir ni mu kawee kenn kenn yilfu leen xutbul xawsu beeg ak taab bi lépp ci am ñoom sax mën nañ laa bañ a xam fot bu la nii woon dañ naa la yaay nga ne man nga ma ma ko xaw ci ne ah kuy kuy ko est-ce que waaw ñoom hors catégorie lañu nekk xoolaatal li xoromu xutbul xawsu am na keneen koo xam ne mi ngi tudd xutbu falaki daa irtiwuté kooku hors hors catégorie la beneen fi ñu toll kooka moo gën a fort xutbul aqtab waaye kooku liggéeyam réseau bu mag bi moom mooy sallallahu taala alayhi wa sallam mooy émetteur bu bu bu mag bi ca la xutbul akta bi jëlee émetteur émetteur la moom kooku fi kooku kooku moo gën a for moom ñëpp kooku moom hors catégorie beneen la moom xutbu falaki daa'iratul wujud tur tur bi képp moom définir na maanaam yi waaw waaw kooku kooku kooku kooku ku xoromu la ku xoromu ko ci xoromu te kat ab sàmba jaro ndaay la kat waa joo xam ne kat ab saagam sax amul kooku ko téyel yàlla xoromu waaw ci wil moo moo tax fi toll xul xul bu fekk da day kiwu jot ku ci ku gëm ak amam ak melokaan woowu mu mu mel koo gis na nga ko moytu waaw ndax ndax adduna bépp bu doon benn siis la moo ci saytoo waaw moo ci saytoo de moom képp mu ci war a toog képp te kooka moom yurut oto yurutum nangam yurut dara yuru ko yuru dara de waaw benn waaye la ci bëti nit ñi ñu ko xamul kooku suñ bi kooku suñ bi mën naa mën naa yàq adduna ku ñuy wax bay den sëy jàngkat nee na benn jëwrinam ci daara yi suñu Mahamadan Jobbe nee na jëwri bi nee na dafa ànd ak suñu Mahamadan Jobbe ba ci foofu ñu doon wax banque islamique amoon na fi garab gu fi nekkoon foofu ci yoonu Mbàkke nee nee na suñu Mahamadan Jobbe sumi dàllam su dindi kaalaam sumi mbaxanaam raam dem ci góor ga góor ga nee na ma nga xoromu góor ga waaw njàng njàng da njàng gaa ne moom donga bi sax diw noonu donga moom daa taxaw moom sëñ ba dem nuyu ko raam nuyu ko dikkaat daal ne ko ci yàlla di kiimaan la kii de su ko neexoon mu mu far dënd bi te te du ko dikk dara yoru dara moom yoru dara moom col ga sax nam mel ku amul bàttin mënu ko xam sëñ Mahamadan di dindi kaalaam dindi mbaxanaam sumi dàllam def raamal ko ci la ilaha illallah la ilaha illallah te te tali bi mu xamul woon yooyu nag wax wax yooyu li muy njëriñ nag mooy moytu ginnaaw yow amoo bëti sëñ Mahamadan job bi amuy bëtam léegi yow am ngam xelum roy ko koo seen ku ku mel ne kañ wax ne sëñ Mahamadan job bi doon na ko raamal léegi yow xamu ko léegi garaam la ko boo ne waaye déedéet nangam man ko koy solu sagar du ma déedéet sëñ bi son son boobu mag ñi dañoo wax ne dañ cub yàlla ak dañ cub dof dañoo niroo day bekk ni ab dof day denc ci ëpp sën borom moom xel du du du dem ci ëpp sën di ji xaalis waaw teg naa bu baax
yàlla day denc ci foo xamante ne borom moom xel du ko xam parce que ak sa
kon leer na kon parce que moytu moytu moytu moy man man man na ko de bu tey bët neexut moytul moytul daa dañu wax njëriñ naan ku la romb nga ne du waaja waaja da la la romb di wéy ku la romb nga ne du waaja waaja dana la romb di wéy kon ku la romb nga ne waaja waaw
waaja am na solo am na solo inchallah ah am solo maa ngi dégg dem bu ñu jógee Tuubaa rek Mbaye Touré ñu romb gis ñaari gars yi yoo yoo xam naa yu xorom yooyu rek ci ci télé bi mu ne ah waaye te- te- tey moom gars yi te- tey moom bari nañ ci bari nañ ci yoon wi de ah ah ñaa ñoo ngi day waaw ah ja- jàppal na rek mën naa am ca siwir yi la
waaw parce que lu am solo la giseen woowu am na solo wallaay amul ah da- dana tax a mucc dana tax bu ñu amee njëriñ lu leen mën a jox nga jëriñoo am na ko ñuy wax bay galas tëlib tëlib boobu jàkkee si si sëñ Cheikh Saliou gi waaw conduite bi dana fay toog su- yoor yoor ba tëb ngoon gi ma dem fa nag yow siyaare ko danaa koy def ba ma romb dem dem sax mbaxaana siyaare ko keroog ba ma dem romb fa ne bay ture naa ma ba ma ba ba ba ma jógee ba bay dem bay ture na ma ah ci am na ku lay ci ci roy de am am na ku ko jàdd di roy gis gis naa ko bi- bi- bis ma dem fa di di ko siyaare ndeysaan ba ba may ñaan benn waaye daal di ñëw daal di moom it kii siyaare ko di jox ko la lam yor mu mu- mu ñaan ndeysaan waaw léegi gaa yi gaa yi nga ko suñ bi de gaa yi nga ko de
parce que gaa yi nga ko de amuñu pasero amuñu bu bu mu baax ci- bu bu bu bu mu baax ci ci bëri nii la wax waaw waaw
waaw islam moom li- li- li- lam xam ci lu baax mooy la leew la dagan sama bi taxaw macha allah macha allah